tax ma ne kooku aussi boroom xam-xam la ndax moom dafa ni yàlla moo ma jox ordre ba dem seeti sëriñ bi xamale ko te nekk ci disposition moo tax ma jël sama alal jël sama njaboot jël ñëpp jox leen ba may jur samay doom njaboot Sëñ Tuubaa moo taxoon mm-hmm. moo tax ñenn ñi mu dugal leen ci école les fils de chef à bi pour que moom bu fi nekkatul ñoom ñu mën a taxawu doomu sëñ Tuubaa fi nekk. Mhm. mu am cinq xalif sëñ Tuubaa am cinq xalif yoo xam ne directement lañ jógee. waaw sëñ Moustapha Mbacké sëñ Moustapha Fall. Mhm. ñëpp ay Moustapha lañ. 1930 1927 53 56. am na aspect bu am solo nga ni Ndar fexe na ba dugal ay doomam. ci école des fils de des fils de chef maanaam enseignement occidental. occidental waaw tout à fait mhm. waaw xam nga loolu. sëñ Touba dugalul benn doomu enseignement ah, foofu sax foofu sax mën ngaa xuus boo xuusee nga ñëw ci première guerre mondiale waaw donc li nga xam ni colo colon bi mu ñëwee ne dañoo bëgg maanaam Sénégal yi yóbbu seen yóbbu yóbbu ñu yóbbu Sénégal yi mais bi Sénégal yi bañee dañoo jëm ci marabu yi ñoo na ku nekk yóbbu sa doom mm-hmm. comme exemple sëñ si yóbbu sëñ Ahmed si mm-hmm. famille Tall yóbbu ño ñu bëgg nag sëñ Touba yóbbu doomam sëñ Moustapha Mbacké ba ko sëñ ba ko maam Cheikh yëgee mu ne mukk mu yóbbu doomam taawam sëñ Fallou lu Fall. yóbbu deux cent cinquante talibé. yoo xam ne ay Baye Fall lañu. mu aaroon leen première guerre mondiale. deuxième ab si sa sa kii deuxième deuxième sa Abdoulaye Faye Ndam. Hmm. def na première guerre def na deuxième guerre mondiale. waaw maanaam trois cent treize Baye Fall dem nañ ci guerre mondiale rek pour bañ wàkk Kër Sëñ dem. bi ñuy mobiliser aussi sur le su la sur le franc CFA maanaam mille francs contribution Sénégal ñoom waa Kër Maam Borom Touba at ma ñoo ko ñoo ko ñoo ko moom lañ jox institution pour mu dem mobiliser ko ñëw jox ko tubaab bi. Mm-hmm. cest à que am na moo tax ma ni itinéraire la cest à que fi mu jaaraat ñoom fépp ba loolu moo tax ñoom ñu jël médaille tubaab bi jël médaille bëgg a ñëw jox médaille sëñ sëriñ bi bu ko takkal médaille. Mm-hmm. parce que foofa la maam maam Borom maam Cheikh nee na. lañu tegoon sama sama sëriñ bii dañoo dem ba ñoom ñoo ñëw di saraxu sama sëriñ bi. Mhm. ndax liggéey bu mu liggéey. Mhm. te loolu yëpp ci stratégie la parce que sëriñ bi amul jot. Mhm. sëriñ bi mu ngi ci yeneen sphère moo tax mu ne c'est l'univers moom loolu yëpp lijjantiwu ko woon mais taaliba mi ñëw lijjanti loolu maam Cheikh commencé ci maam Cheikh at maam at ñu ngi am bari nañu. parce que nag du moom rek. parce que bi ñuy dem Saint-Louis maam Cheikh ak Cheikh Ibrahima Fall Njaañ ñoo dem Saint-Louis. maanaam bari nay yoo xam ne ku nekk yaa ngi ci benn pôle boo xam ne yaa ngi fay liggéey. ku nekk ak li ngay def. ku nekk ak li ngay def.